Modibo Soumaré ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum Sylvie Faye maa ngi lay nuyu. Mhm. di la siyaar. Ah, ñu ngi lay fay bu baax may fàttali rek eh, yaay yaay PCA fédération des Sénégalais de la diaspora noonu la. wax nga dëgg. Mhm. fédération internationale des Sénégalais de la diaspora. d'accord euh, mën nga ñu wax tuuti euh, lan mooy solos fédération des Sénégalais de la diaspora. encore une fois maa ngi lay gërëm si mm-hmm. invitation bi di mm-hmm. gërëm euh, waa réew mi yéen vraiment yéen taxawu ngeen euh, diaspora bi mm-hmm. saa yu ñu soxlaa wax ak askan bi ngeen abal ñu ay micro ñu leen si gërëm bu baax wa baax waaw pour wuyu sa question bi euh, fédération internationale des sénégalais de la diaspora du dara lu dul benn association boo xam ne que taxawal nañ ko depuis deux mille treize mu nekk benn association u euh, membre jaspora bi migrant yeeg migrant yu nekk si euh, you know bitim réew euh, toog xalaat ni daal ah adduna bi léegi dafa dem di gën di takkarnaas mm-hmm. te ku suñu juboowul jàppantewul loxo jëm jëm a àndandoo su problème mu adduna bi di gën di garaaw sénégalais yi dañuy gën di am ay problème rek kon nañu mbooloo mooy doole nu ko wolof njaay di waxee Mhm. donc ñu xalaatoon depuis mille 2013 nañu jéem a euh, créer benn association boo xam ne que dëkku adduna bi yëpp fu Sénégalais di yeewoo euh, ñu mën fa am benn représentant boo xam ni que euh, dina mën connecté ak ñeneen sénégalais yu nekk si yeneen dëkk yi. Mhm. comme ça ñuy xamante ñuy you know ñuy dimbalante et mu nekk loo xam ne que day nekk jëriñu Sénégal. te tamit ñu xalaat ni que suñu jàppante euh, di dimbalante si bitim réew sénégalais yi day day permettre ñu gën mën euh, dimbale suñu waa suñuy waajur di mën gën di dimbale ñu ñu des Sénégal mm. donc xalaat boobu daal moo moo moo ñu moo dugg suñu xol ñu jàpp si nag di di àndandoo euh, après depuis deux mille 2013 ñu organiser benn structure boo xam ne que léegi man maay président conseil d' administration bi mm-hmm. am nañu euh, comité exécutif am nañu tamit ay commission euh, yuy yuy you know yuy liggéey si ay domaines yu bare euh, si affaire u droit de l'homme si affaire u problème mu jigéen yi si affaire u affaire u jot kayit mm-hmm. you si problème yu bare daal naka mm-hmm. la ñu mën a organiser wu di di àndandoo di jugandoo di dóorandoo di daanandoo d'accord daal moo moo nekk suñu xol. d'accord monsieur Soumaré euh, lan mooy euh, activité yi nga xam ne fédération yi ëmb sénégalais diaspora moom lay faral di def. waaw euh, am activité du ñu bare te mm-hmm. wuute comme nu mu la ko waxee premier objectif bi mooy dëkk bu nekk fu Sénégal di yeewoo ñu mën fa am benn organisation wala benn association bu ndaw. Mm-hmm. boo xam ni dina boole nit comme ça su nit amee problème. am ñeneen mbokk mi mën ko mën ko jàppale. Mhm. kooku benn euh, forme associ euh, organisation la boo xam ne ñoo ngi koy te macha allah am na ay dëkk yu bare samp nañ fa ay ay structure mhm. kooku benn beneen activité la soo soo gis nga ko sax si saa yu sénégalais euh, gaañoo surtout sénégalais bu ñu tooñ mhm. ah, bu si àdduna bi ah, FSD daa ñuy def ay ay communiqué si presse bi di leeral sénégalais yi um, <clears throat> um, uh, suñu tooñe suñu benn mbokk si àdduna bi lan moo nekk si ginnaaw ak di woo tamit uh, parfois um, uh, membre gouvernement bi pour ñu jóg pour ñu dimbale ñu si yenn liggéey yu ñuy song donc daañu def beaucoup d' activités si si mm-hmm. médias yi mm-hmm. di yëgal sénégalais yi problème yu membre diaspora bi di jànkonteel Euh, troisièmement dana am beneen exemple buñ bu ma mën a joxe tamit mooy euh, chaque asu euh, année um, la fête des migrants daañuy dem Sénégal mm-hmm. di liggéey ak ministère ye yeneen um, association organisation non profit ñuy liggéey si affaire immigration ak nak la ñuy dimbale immigrants mm-hmm. mais pour l'instant vraiment lu may daanalee mooy wax la ni que Euh, am nañu daal euh, ay mbébét yu bare yoo xam ni que euh, pour mu pour ñu mën fa egg il faut que ñu am un peu you compréhension wala mm-hmm. liggéeyandoo ak membre gouvernement bi waxuma membre parti politique dama ni membre gouvernement bi ministère yeeg ambassadeur yeeg consulat yi naka la ñu mën a liggéey ak ñoom ban rôle la ñu mën a jouer ak ñun ban rôle la leen ñu mën a jouer ñuy ñuy ñuy àndandoo. Mm-hmm. xalaat boobu si suñu demee si congrès bi bu nañ si gëstu quoi. Mm-hmm. muy nekk loo xam ne rek day gën yokk sunu sunu uh, nu ñuy daanee sunu doole. d' accord d' accord monsieur Soumaré gis nañu mbasum coronavirus euh, nu mu wëree si àdduna si euh, ba impacté secteur d' activité yu bëri ñëpp sonn si euh, fii ci Sénégal rawatina ak yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci diaspora yi ak mbas mi yan jafe-jafe ngeen di jànkonteel le plus. yaa uh, soxna si wax nga dëgg uh, mbas bi daal mar mar affaire bu garaaw la donc membre diaspora bi. defe naa musuma gis benn euh, you know mbas wala feebar bu affecté diaspora bi ñi parce que ñun euh, membre diaspora bi ñu bare dañuy liggéey si euh, liggéey yoo xam ni que day day tax nga am contact mm-hmm. ak ñoo ngi liggéey si transport mm-hmm. taximaan yi xam nga mm-hmm. taximaan ay client ñoo ngi liggéey si restaurant yi di servir nit ñi am nga kon donc ñu du am daal euh, ñu bare si ñun du ñuy liggéey si liggéey yoo xam ne que soo moytuwul rek corona bi dina la dab. Mhm. donc loolu euh, liggéey yu mel noonu yu bare si euh, comme Amérique wala même en Europe même en Afrique tamit. Mhm. am na ay business yu nekk si hôtellerie si transport ñoom ñëpp ñu tëj. donc ñu doon liggéey di yónnee seen waajur you know dépense amatuñu liggéey donc mm. ñoo ngi am ay difficulté yu bëri léegi soo xoolee euh, si yenn dëkk yi comme fii Amérique euh, ah, ñu bëree def nañu ay levée de fonds même si Amérique si entre ñun euh, you know defe naa association des Sénégalais d'Amérique FSD tamit suñu groupe bi def nañu ay levée de fonds egg na dans les trente quarante cinquante mille dollars mm-hmm. yoo xam ne que Sénégalais ñoo dajale seen xaalis pour dimbalante seen bopp wante tamit Euh, comme nu mu la ko wax euh, euh, comme nu mu ko ko doon waxtaanee sànq Sénégal guvernement sénégalais Sénégal def na yëkkati na lu mat ni douze milliards jéem ko investir si diaspora bi mu nekk loo xam ni que loolu kenn mësu ko gis c'est la première fois. Mm-hmm. gouvernement di Sénégal di génne xaalis bu mel noonu di ko jox diaspora bi. donc mm-hmm. loolu dafa tax dafa nekk rek ni que diaspora bi affaire yi métti na. Mm-hmm. wante dama bëgg conclure nu mu métti métti métti. Euh, membre diaspora bi Sénégal mooy nekk seen priorité toujours. Mhm. donc suñu xoolee euh, diaspora wu àdduna bi yëpp Sénégal c'est troisième diaspora ñooy position numéro trois si ñu ñuy dimbalee euh, suñu waa suñu suñu waa you suñu waa dëkk. Mhm. donc sénégalais migrants sénégalais lu ñu leen mënti wax. vraiment gëm nañu seen waa dëkk te nu mu metti metti ñu continuer di investir suñu waa dëkk. d'accord incha allah à milliards bi nga xam ne état bi mu ngi leen koy jàppale ndax amul euh, beneen dimbal euh, bi nga xam ne yéen a ngi koy jot yéen au niveau de la fédération ak itam ndax amul ci yéen euh, ñiy jànkonteel ay problème papier ak yéen lan mooy seen taxawaay pour ñooñu. wax ah, sa question bi am na solo torop waaw ma bëgg rek leeral ni que fédération internationale des sénégalais de la diaspora. Mhm. musul jot dërëm. si gouvernement Sénégal musul jot dërëm si euh, euh, nit mm-hmm. euh, bu ñuy def conf suñu congrès à Nantes kooku deux mille dix-huit la jot nañu ay ay financement ak ay partenaire business mm-hmm. you know mais jot xaalis si gouvernement Sénégal wala bépp beneen gouvernement dama bëgg rek mu leer mm-hmm. FSD lépp ñuy def duñ koy autofinancé. Mhm. wala su ñu amee ay partenaires day nekk ay partenaires privés yoo xam ne que peut-être daañu ñëw présenter seen seen euh, produit bi. Mhm. ñun ñu ñu ba pare ñu ñu dimbale ñu si euh, investissement donc lool dama bëgg mu leer ni que euh, FSD musul jot dërëmu si gouvernement Sénégal te tamit lépp lu ñuy def daal duñ koy autofinancé. d' accord loolu rek laa d' accord ñu ngi yéen a ngi jëm ci ay élections monsieur Soumaré euh, lan mooy enjeu wu yooyu les élections waaw gis nga yi dama koy rafetal parce que mm. dama bëgg euh, peuple sénégalais bi xam ni que diaspora sénégalaise bi du ñuy topp rek suñuy tànku maam c' est à dire duñu du ñu gëm démocratie léegi euh, FSD ñëpp ñu koy ñu ko ngànk leader yi kàngam yi duñ leen voté donc dañu defoon vote électronique en plus de centaines de personnes ñu nekk si àdduna bi yëpp voté ni ok Modibo Soumaré la ñu bëgg mu nekk président mhm. ah, Momar Hiraw la ñu bëgg mu def lii keneen la ñu bëgg mu def laa donc loolu dañ koy rafetlu léegi ah, suñu vote bu be ah, suñu demee Dakar du ñu bugg indi équipe bu bees xam nga àdduna léeg-léeg sooy liggéey ba ba mu sës da ngay indi ay équipe bu bees mhm. you know ñu yokk mbir El Hadj moo doon football Sénégal léegi Sadio Mané ñëw na xam nga. Mhm. il faut affaire yi ay changé loolu rek lañ ci mbébét. Mhm. dem Sénégal am congrès wu jàmm ak salaam ba pare tamit permettre euh, ñu xool quoi. Euh, mhm. lu ñu doon liggéey euh, lan moo si baax lan moo si baaxul naka lañ koy mën a améliorer ba pare tamit indi ay nit ñu bees ñoo xam ni daal ñu mën. continuer euh, liggéey bi loolu rek lañ si xalaat defe naa incha allah élection wu jàmm lay nekk. d' accord euh, yooyu la élection bu FSD euh, kañ lay doon ak ñaata candidat ngeen am. waaw élection bi incha allah bu bees bi di nga koy élire le 31 août. donc samedi prochain incha allah du ñuy def du ñuy tuddee assemblée générale. Mhm. xam naa dinaa la sax lien bi parce que du nekk. Euh, day nekk benn assemblée générale sur Zoom di nga ko bugg def sur Zoom. Mhm. daañu wut place yu bare donc du ñu bugg sénégalais wu diaspora bi yëpp ñëw euh, fekkee seetaan conf général euh, générale bi sur Zoom. Mhm. Ah, donc ce sera le 31 et donc ñëpp. yow sax daa mën ci zoom bi mhm. seetaan fekke suñu eggee ci conférence bi nag daañu def am na benn partie boo xam ne dañuy jël Euh, mesures disciplinaires yi c'est-à-dire euh, euh, xool ñëpp ñoo xam ne que you know def nañu ay jëye yu graaw yoo xam ne que duñ leen war a mm-hmm. léegi suñu paree ci mesures disciplinaires yi ensuite daañu dañuy établir liste candidats yi donc actuellement xawma kan mooy candidat mais si le 31 soo leen ñëwee si réunion Zoom bi mm-hmm. daa leen mën gis affaire en en direct mm-hmm. ndax euh, am na ay tension euh, donte sax jotagoo leen liste candidats yi ci entre candidats yi ndax am na ay tension yaa xam na rek euh, mbiru sénégalais moom tension dina am wante tension si la bokk mhm. tension suñ ko gérer bu baax day nekk tension bu baax mhm. parce que you know contradiction nit ñi an you ay contradiction loolu si nit la mhm. donc lu du loo xam ne que duñ ko war a éviter wante duñ ko war a gérer donc yéen am na ay tension am na ñu bugg ñu am ay yenn mbébét yi am na ñu bugg jaar nii ñu bugg jaar mais lépp daal ñoo ngi gérer si si jàmm ak salaam si respect ak si jéem rek avancer loo Sénégal mais am na ay tension mais rien de extraordinaire Mmh. Euh, fédération des Sénégalais de la diaspora ban problème la am ak kii di médiateur de la République di Alioune Badara Cissé. waaw ma ma leeral li ni que euh, fédération internationale des sénégalais de la diaspora amul benn problème mm-hmm. ak euh, maître euh, Badara Cissé le cheikh ndax Alioune maître Alioune Badara Cissé comme excellence le président Macky Sall mm-hmm. suñu ay leader lañu suñu ay exemple lañu si diaspora bi lañu soqee ko te duñu mës a Euh, bugg diaspora bi dañu mës a defaral diaspora bi. Hmm. naa la limal ñoom ñaar ñëpp. donc si presse bi nag xam nga affaire politique day dugg léeg-léeg day si mouvement volontaire yeeg yooyu wante euh, FSD amul benn problème ak Alioune Badara Cissé ñu ngi ko teg suñu position numéro un. Hmm. suñu euh, l'excellence le président Macky Sall position hmm. ay unis ñoom ñaar daal mënuñu diviser. Mhm. seytaane nag buy jéem a diviser na diviser mais ñun daal pour ñun ñaari ni ñooñu ay ay nit yu ñuy unir lañu. Mhm. c'est pas des personnes qui vont nous diviser. Mhm. donc ma bëggoon rek leeral loolu parce que c'est vraiment la position officielle de la FSD. d'accord merci beaucoup euh, Modibo Soumaré. Sylvie jërëjëf waay man kay maa lay may fàttali rek yow yaay euh, président conseil d'administration euh, fédération internationale des Sénégalais de la diaspora.